بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتخى المصلي صلى وسلم عليه الله في الآل وصحبه ومن والاه وأمر الأملاك أيضا بالصلاة عليه زائدا بذلك الولاه summa ilayna wajjahal xitaaba takarruman wa anfasal ataba barke borom ba mbokk taalibe ñu ngi leen du nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay te di leen bëggee ci bis bii ci bisu safar di safar dëppoog ci weeru le 17 octobre 2019 tombé ci atum jullit di ab alxames 1441 ci atum julit comme ni ngeen ko gisee nii ñu ngi ci dalu waa daara maj ma woon nooray ni fas yéene leen dikkal benn reportage boo xamante ni day aju ci wàllu liggéey bi ak ci wàllu doxalina liggéey bi fii ci màggal gi nga xamante ni mbokk taaliba yi ñu ngi ni di bégee safar gi ne ci ci liggéey bi nga xamante ni 18 safar moom Liko ko moy a ni comme li sëñ bi nan sababu xaybatiya anna allah arada an anala min hujaha wa an akunu shafian lil khawmi wa an akunu khadiman fi daw xamante sobe sauvé ni manam mm, dat daat ramu mm, ak liggey liggéeykatu yenente bu sax dak mot mo waral bisuk magal gi kon ñu fasiyene dik reportage wa dara majmuhul nuraini ci ben membre commission culturelle ñu koy wax seigne abdou fall saw mu defal ñu ben résumé ci teunk lu gatt rek ci quelques simili manam lu waral magal gi ak nan lañu wara magalé xamanteni mbokk taal bi yeb dinañ ci jarignu kon seigne abdou bismillah Alhamdulillah min syaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammadin alaih salatu salam. alhamdulilahi allazi hadaana li haza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadaana allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki taalibe yi mbokki jullit ngi leen di ziyaara bu baax te di leen ndokkeel ci uh, bés bu tedd bi ak weer wu tedd wi nga xamante ni ca la képp koo xam ne nii ab murit nga rek uh, xéewloo waaye it ameeg sa texe comme ni ko sëriñ bi waxee ne woon ñi aju ci moom suñu ajuutoon ci moom donte as ndiir la danañ dugg safara kon loolu te lépp bés bi moo ko waral tey waaye suñ delsee ci sababu bés bi rek sababu bés bi moom ci tënk rek comme ni ko boroom taarixal ba waxee ki doon taarixal sëriñ ba euh, mooy sëñ Mouhamad Lamine Diop Adagani li mu waxoon ne li waral génnub sëriñ bi lenn rek la muy jafe-jafe yoo xam ne walla boog ay noon yoo xam ne jàkkaarloo ñëw ak sëriñ bi li sëriñ bi woote mooy comme ni ko sëriñ Muntaxa di waxee rek euh, kàddug yàlla di jëm kow ñu taxaw ne du fi amee sëriñ bi taxawoon ne loolu rek mooy dëgg euh, boo xoolee jàmmarloo sëriñ beek ñoom ci résumé loolu kese la. waaye nag leneen tàbbiwaat ci muy ñu jàpp ne it ñoom ñoo ñooy génn sëriñ bi waaye fekk ne it sëriñ bi it kon am na lum jaayanteeg boromam loo xam ne it ngir nit ñi jëriñu foog mu jaar foofu di ndogalu yàlla. kon moy la seigne mohammed lim job waxone rek mu tombé won nag bes bi nak tay lim ne won kharat yow ma sabti samina ashar li xidmatil mukhtar fi shahri safar ngi gennon ci besub samedi ci euh, euh, fukki fan ak jurom ñet euh, ci weeru safar jëm ci tukem bu mag bobu non nga xam tukki bi nak man damay wax toujours nan li ci gëna doy war moy lutax serigne waye ñëk loolu it bi dafa tukem bi muy dem dafa am lu mu lu doy war mo yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku nek xamna ne bi nga xamee ni na ci Makka ba yenn saxaaba yi wuy nga xamee ni da daan ci Daarul Arxam ak yenn ci sahaba yi bimu deme ba feñ bañ leen di bundu xatal gis nga décision yi nga xamne jëlon nañ ko ca mom ba alquran wàcc ci artu ci mooy lam na wa iz yamkuru bika alladina kafaru li yusbituka aw yaqtuluka aw yaxrujuka wa yamkuruna wa yamkuru allah wallahu khairul makirin kon ñoom dañoo tegoon ñetti condition ci yonent bi mooy kii daal indi fi lii te suñuy maam ak suñu bàyyi xamuñu ko woon benn dañ koy tëj kaso wala ñu rey ko wala ñu génne ko waaye suñu borom def mu génn muy gàddaayam googu jëm Medina fekk ji ñooñ nga xam ne ñëw waa Ansaar waaye sëriñ bi it nga gisaat ne it ci biir tukkeem boobu it ñetti condition yooyu kese lañ tegoon mooy benn sëriñ bi ñu tëj ko waaye ñenn ñi gis ne buñ ko tëjee fii dina bëri nit ba kenn du fi mën a euh, te xej ndax ñëpp dinañ gàddaaya fu ne ñëw fekk fi sëriñ bi wala book ñu ray ko ñu ne it rayda de buñ ko ko defee guerre boo xam ne dina dekki kenn xamut fu muy fayee kon ñu gis ne lenn rek moo fi des mooy génne ko kon sabab boobu tey ci zahir mooy sababu génnuk sëriñ bi waaye nag ci baatin moom mooy ndax li mu war a liggéeyal boromam tabaaraka wa taala ngir nit ñi jëriñu moom kon jiitu woon na juddug sax ñooñ te loolu li koy leeral mooy lam wax ca ne asiru mahal abrari xiina asiru wa zannal ida naaka asiru te loolu fi lu fi gën a doy waar mooy xam nga satrul awal bi ak satru saani bi yëpp da ngay gis asiru asiru waaye boo xoolee asiru bële ak asiru bii du benn ndax bii dafay dox ànd ak ñi nga xamante ni ñooy gaa yu baax ya bee nag ñoom mm, mm, mm, ñoom dañoo njortu ne daa nekk koo xam ne prisonnier la ci ñoom ñoom loolu lañ njort waaye sëriñ bi jamono jooñ njorte la ñoom sëriñ bi moom wax na ne moom nekkul prisonnier kenn waaye boobu mu ngi dox ci eh, xelam mu dal ndax njëkk lool it yonent bi dana ko woon imshi la taxshal gharar wéel te bul lagar lu la lor wala dara kon amoon na loxo xijaaban maanian amoon na wéeru kiirtaay goo xam ne moom gu wér la ni yiir nañ ko ba nga xamante ni moom dina dem waaye li ci gën a doy waar xam nga boo gisee lu tax mu sëriñ bi di feete ak dem te feetewul ñibbisi te wolof yi dañuy wax naan dem ca làmb jay bàkku ñibbisi ci làmb ji bàkk ko ëpp doole lu tax sëriñ bi kon di dem di bàkku kon loolu rek war naa wone ne kon sëriñ bi moom xamoon na fi mu jëm xamoon na ne day dem day delsi te li ko waral mooy te loolu it feeñ na ci sëriñ bi étape bu nekk boo gisee fu mu yegg si dafay mel ni suñu borom daf koy defal ci étape bu ne bu fa yeggsee mu jëlee fa loo xamante ne nii daanaka dem gi dafa neel ni ay escalier fu mu ñëw rek dañ ko fay takkal garaat mu jàll fenn ñu takkalaat ko fa de garaat gis nga sax bi mu yegg si rek ci Ndakaaru li wax nafaali xayrillah fi ndakaaru kulla azan li jarraxul makaaru kon dèjà bi mu yegsee Dakar rek lépp luy lor suñ borom euh, euh, euh, soril nag ko xoolal loolu mu demaat fu ci yeggaat tamit daanaka waxaat lu lu lu ni mel nga gis ne kon sëriñ bi maanaam demam gi boo xoolee waxuma mu dem ba liggéey bay ñëw waaye bi muy dem lay takk ay garaat di di ko takk di ko takk ba mu yegg loola nag mu ngi feeñee ca lam ne woon laataa ma fay jógee amoon naa li sëriñ sépp am mooy amoon na imaan ixsaan ak e, e, e, islaam waaye nag daa am lu ko dese woon muy kamaalul imaan kamaalul islam ak kamaalul ixsaan yooyu noonu nga xamante nii ne mooy lu mel ni wusul maarifatu billaahi ak yaqiin ñett yooyu noon nga xam ne nag nee na moom loolu moom mu ñàkkoon ko ñu koy jam ay jamate sax moo ko gënal te loolu kon tey boo xoolee sëriñ bi kon demam gi yëpp mooy kon li sëriñ doon def yi fi nekkoon mënoon na ko ni ñëpp waaye kon li nga xam ne nii moom nag mooy lu spécial la loo xam ne kon sëriñ bi moom rek a ko am moom moo ko moo ko wuti woon moo ko liggéey moo ko am ci liggéeyam boobu kon kon mën nañoo wax ne loolu mooy ci tënk rek loolu la lan lañ war màggal nag dama la koy tënkal ci benn bay rek ndax euh, man dama koy tontoo toujours la sëriñ bi tontu woon ca mawlud taazimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati la valable woon ci gàmm moo valable rek ci màggal sëriñ bi léppam sunna la dama man talabal wasulu lil jalil fal yaatasim bi sunnati rasul kon sëriñ bi ni ñu war a màggalee lenn kese la mooy teg ko ci sunna mooy xool nanga xamante ni noonu la ko sëriñ ba bëggee te la ca jiitu mooy jàng alquran jàng xasida ak bernde waye lepp lu ñuy daw ñu diko fa moytu waye tamit fonk fukk tamit waxtu borom beek lepp lo xamné ak jaamu yalla la go xamné suñu borom da ko tek suñu kawit sa yu joté ñu bayyi lepp lu ñu doon def dem defiko ndax loolu it day nekk jenn jëmono jo xamné ni nii tem mu dugg da defa nga nekk ci dara ba waxtu borom bi taxawala dara nga ne ah man damay defal nangam sëriñ bi motax duma defi loolu wala dara loolu jëfi seytaane la waye kon lepp rek lu mëna xew rek dañoo war di nekk di nité sa yu nekk rek di wat lu mëna xew rek ñu wat ci li nga xamne ne moy jangalem serigne bi te moy diine ju set wi ci ju amut ak rax wala dara man ci sama gis-gis dal moy li nga xamne non lañ koy magale moy magal ci serigne bi dal moy magal ko ci sunna rek ndax serigne bi lol kessela fi wote won lim non woon baddu al abdu bi tawhid wal fiqh an at tasawuf majid muntahijan mazhab ahli sunna ma al jamaati wa tilka al junna kon jaam bi ñett yooyu la am xam lu tawxiid fiq ak tasawuf waaye nag pare soobu ci ahlu sunna wal jamaa te mooy sëriñ bi loolu rek la fi indi woon mosu fi indi lu dul sunna sunna la doon dund sunna tamit la jàngali taalibam sunna la jàngal ñëpp moo tax tey yoonu murit nekk loo xamante ni saa yu nekk ñu ko gis muy gën di jëm kaw gis tamit jumaa yi di gën a yaatu lépp liggéeyal ko diine nga gis tamit ñi nga xam ne suñuy kilifa lañ seen diin seen yitteg lépp ñu def ko ci tabaxi juma def ci ay milliards ek millions loolu ko amul pas-pas ak ngëm yàlla doo ko man kon loolu yëpp li muy firndeel rek mooy sëriñ bi kon loolu rek la doon xeeñtu lam ne woon yàlla defal ma samay kër lépp def ko muy ay jàkk loolu kon li muy feeñal rek mooy sëriñ bi diine la mësane diine la mës a woote lil Mustafa na waytumaa yu jaddidu sunnatuhul gharra wa inni ahmadu kon sëñ bi indiwu fi dara lu yees waaye dafa ñëw rek li fi nekkoon nit ñi sàggane ko mu yeesalaat ko ba mu yees kon xanaa um, ci kàddu yu gàtt ak kàddu yu tasaaroo ñu ngi koy jéggalu <laughs> loolu lañ ci amoon rek lu ñuy <laughs> ci jàllale di ñaanal tamit yàlla nañu sëriñ bi nangul suñu suñu màggal waaye bu ñu ko nangulee tamit yal nañu ko defal ci suñ suñ borom defal ñu ko suñu misaanul xasanaat ba ëllëg kenn ñu ëppale ci li sëriñ bi fay ci mbaaxu sëriñ